tension bi nga xam ne wala malaise bi nga xam ne lii di société Wagner privé boobu nga xam ne ay mercenaires lañ euh, seenu ko lëkkaloo ak yenn ci réewu Afrique yi tax ba mel ne dafa neexul CEDEAO wala lu ni mel ba tax ñu ci wax yenn saa yi di artu ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen dëkk yi ana na nga gisee mbir moom tiis laa gis tam ak njàqare ak affaire yu cuune rek euh, te question bi nekk question boo xam ni am na solo boo xam ni lu lu toll ni CEDEAO ak chef d'État yi bu ñu demee bay wax ci dara war nañ ko teg ci yoon parce que CEDEAO c'est pas n'importe quelle structure euh, président yi c'est pas n'importe quel citoyen question boobu tam c'est pas n'importe quelle question question mm. de sécurité et de souveraineté faut faire très attention euh, gis nga li ñuy wax affaire Wagner boobu société mercenaire ba du dugg ci détail yooyu même bu dee société mercenaire européens yi ak États-Unis dañuy utiliser ay mercenaires man ci Afghanistan la la nandee affaire boobu du ma koy topp di ko topp ci gis ne Afghanistan ñu bëri ñuy intervenir foofu ci militaires yi sur le terrain mm-hmm. am na si ñoo xam ni ay ay groupes particuliers lañ de militaires yoo xam ni nekkuñ ci armée légal bi. mais dañ leen di wax ne su ngeen intervenir après dañ leen jox papier wala après dañ leen jox ni et cetera et loolu dafa yàgg légion légion yi ñuy wax légion étrangère yi ñuy wax ah. France amoon ko fi africains yu bëri bokk nañ ci ay sénégalais ay guinéens et cetera ay légions spéciales yoo xam ni ñi ciy bokk euh, du ñu forcément ñoo xam ne dañoo bokk ci armée nationale beeg yooyu mm-hmm. kon société Wagner bu fekkee société boo xam ni la bu légal la te effectivement bu légal la enregistré Union soviétique euh, benn état gis ne soxla na seen service parce que dañu spécialisé wu loolu mooy indi société yooyu dañuy spécialisé wu ci yenn enjeu de sécurité yoo xam ni yenn combat de terrain yi nga xam ni en général armée nationale bi mën na am ni formé wuñu nit ñi ci genre combat yooyu pourquoi pas li ci am solo mooy que état bu nekk am na souveraineté mooy décider stratégie de sécurité bu mu bëgg ak tamit ñi ñi ñi ko ci mën a jàppale man bi nga xamee ni président Macron wax na ni man damay bàyyi waa Mali parce que man mënuma ànd ak ñoo xam ni euh, seen objectif militaire bokkul ak man li ma ko xalaatee boobu laa ne gis nga feeñ na parce que kon dafa bëgg moom mooy wax maliens yi lu ñu war a def sur le plan sécuritaire bu leen dugg village bi bu leen laal touareg yi parce que léegi bu leen egg ci zone bële non état bi mooy définir ay objectifs am yow boo nekkee partenaire am nag nga ne ko fan laa lay jàppale et d'ailleurs Macron xam na ko parce que dernier discours bi mu def ci affaire wu ne day adapté waat maintenant intervention militaire française en Afrique wax na ko clairement dafa ne léegi dañ ko adapté aux besoins et priorités des pays kon ah, kon nangu na ni que ni c'était pas adapté et que ñoom li ñu bëgg def donc kooku kay nekkatul partenariat. gan du yeewi bay kon nag affaire boobu su amee te du rek Mali centre Afrique ñoo leen njëkk a indil boobu problème génne leen fa euh, gis nga tam Burkina fi mu nekk nii problème bi ñu am ak ñoom parce que pendant neuf ans dix ans nga nekk ci benn réew te terewul terroriste yi euh, di gën di progresser problème yu bëri di jaxasoo c'est normal kon dëkk yooyu daal di seen eh, politique sécuritaire seen politique sécuritaire. Mhm. léegi nag eh, li ma li ma gisee yëfu cuune mooy xool ñu dem ba États-Unis di fa boolante ci africain yi yeneen lépp sunu maam yi jàpp ñuy jaay jàpp ñuy trahir toujours ndeysaan léegi président Ghana amul di dem ba ci kanamu c'est-à-dire daanaka nijaay bi quoi di jooytu ci kanamu sunu nijaay américain Biden naan ko est-ce que xam nga ni sama voisin bi dafa bëgg indi waa Wagner jox nañ leen sax foofu ay mines yu ñu exploité lu ci yoonam. man li ma gisoon mooy que ni CEDEAO nañ discuter question Wagner boobu question sécurité pays CEDEAO ñu am ci benn démarche bu leer wax ne CEDEAO nii la ñuy doxalee ci question sécurité. Mhm. Euh, Wagner boobu ñu définir ban relation la ñuy am ak moom et cetera loolu moo jaadu mais président Ghana amul muy dem États-Unis di fa boole beneen pays frère membre de la bu am souveraineté boo xam ne su ko waxoon yow Ghana ñun Mali ñoo leen war a wax. ku ngeen di collaborer ci sécurité Ghana du ko nangu kon loolu affaire cuune la kon CEDEAO nañ ko waxtaanee ci seen biir mais du euh, dem France wala Union soviétique wala Chine euh, wala Amérique di fa boolente noonu euh, ci question boo xam ne question de souveraineté la. Mhm. kon nag gis naa ni yëfu cuune dëgg la et que nañ dellusi si ci CEDEAO ñu waxtaan définir ñoom selon liñ bëgg kan mooy le bon partenaire pour tel. parce que lu nekk ak le bon partenaire pour loolu tey jii am na armement yoo xam ne peut-être France amuñu ko te Union soviétique am nañ ko euh, Russie am nañ ko am na yoo xam ne tey boo ko bëggee xëy na Chine nga koy gën a yaakaar ci ñoom que leneen léegi nag jox Wagner euh, benn mine bu ñu exploité pour mën leen a fay parce que amuloo argent bi nii pourquoi pas du dëkk yëpp noonu la ñuy def kon nag foofu laa gis affaire cuune bi président Ghana dem fële naan Biden waaw est-ce que xam nga ni euh, Ghana Mali mi ngi def lii ak lii. ah te ñu bëgguñu loolu wara nga cee jog xoolal loolu c'est grave donc dañ bàyyi yëfu cuune yooyu te waxtaane li ñu bokk au niveau de la CEDEAO teg ko ci yoon am une démarche d'ensemble bu loolu weesoo it bu ñu desee ci euh, question africaine ba léegi mbirum coup d'état yi euh, ana ana nga gisee rawatina Afrique de de l'Ouest euh, bi ci rek mooy bu Gambie yi xam ne ne waaw dañ fa bëggoon def coup d'état ba ñu déjoué ak yéen mel mbirum coup d'état yooyu ana lan nga waral ne moo koy amal ak it lu war a tax mu jeex lan moo mu jeex ci Afrique fii. mu jeex loolu de wax dëgg yàlla nag ku ko wax ne mën naa wax ne nangam dana jeex moom ku dul yàlla moom dana dana jafe euh, surtout Afrique ni mu tëddee nii instabilité bi euh, yombul réglé euh, mais à la xaal ay coup d'état du ko réglé. parce que coup d'état tam day indi toujours rek daanaka euh, division ci réew mi euh, tour deret euh, ak keneen di préparer coup d'état wala par exemple bu Burkina bi rek jeune boobu ñëw def coup d'état am toogu fa sax te am na lu ma ci xaw a jaaxal sax moom ci boppam bi mu defee coup d'état ba pare gars yi di ko wax a ah, keneen ku am sa doole ñëwal coup d'état nga xool gis nga ah kon léegi réew noonu lañ koy doxalee mu ne ku am sa doole tam nga ñëw coup d'état xool mooy léegi ni coup d'état nañ ko mais guerre civile mënoon dafa am parce que moom bu bañoon Euh, ànd ak ay nitam lu mu néew néew néew ay bakkan danañ fa rot mm-hmm. kon euh, lii xew Gàmbi tam bu réussiroon njaaxu mën naa am euh, malitam itam gis nga mu jafee donc daal coup d'état moom du solution bi réew nag mooy toll foo xam ni ah armee ba mën nañ jàpp ne fi mu nekk nii amul benn autorité bu mën a indi jàmm ci réew mi bu dul armée bi man loolu dama koy nangu leen saay ci tolluwaay réew par exemple nangu woon naa ko ci Mali biñ demee ba nga xam ni population bi yëpp daanaka génn di manifester daan ne bëgguñu président bi na fi jóge wala nangam ak nangam kon li fi desoon rek mooy président bi woo armée bi ak gendarmerie massacre bu doy am fa wala président bi démissionné et cetera buñ demee ba affaire bi jafe ba tàng noonu armée bi jël seen responsabilité daan ne ñun rek ñoo fi institution boo xam ne tey mën nañ jël pouvoir bi euh, après waxtaan ak askan bi c'est trouver solution mais nag danger bi mooy euh, jël nguur gi nguur gi mel ni lu neex ci yow après nga ne léegi nag damay continuer Euh, du ma ko delloo civil yi mais daal man li ma gën a d'accord mooy nguur gi moom civil yee ko war a yore euh, ay ay ay coup d'état yooyu dafa war a nekk ay ay exception te yoo xam ne ñi koy def rapidement pour régler benn problème la pour delloo civil yi pouvoir bi retour à l'ordre euh, constitutionnel militaire yi dellu seen caserne loolu laa gën a gis mais li ma gis ni jeune officier boo am trente cinq ans trente sept ans ku ci wóolu sa bopp rek ñu def coup d'état loolu moom Euh, Afrique soxlawul lool fi mu nekk nii Afrique défi yi mu am euh, dafa laaj stabilité ak sécurité pour mën a engager euh, combat contre défi yi fi nekk tey de changement climatique de sécurité alimentaire de terrorisme ah de souveraineté d'énergie et cetera wax dëgg yàlla waruñ kon def suñu doolee di rayante suñu biir chaque deux ans ci ay coup d'état ak ay guerre civile ak ay émeutes yu dul jeex mu xaj. Imaam ñu ngi lay jaajëfal. maa leen jaajëfal waa Seneinfo di leen wax ne je reste à votre disposition saa yu soxla waxtaan rek euh, je serai prêt incha allahu taala